Rewmi 24 TV dal leen ak jaamu ci xibaar mu mel ne sonkorisé bi mu ngi wéy rek di am ndax bu ñu xoolee ca stade Ablaye Wade ba dañ ko fa defee ci match Sénégal contre Algérie tey ji daal dinay ñëwaat kon ca basket ba ci basket bi bu ñu xoolee rek ci final bi nga xamee ne tey ji doon na dox ci coupe de la ligue ci diggante eh, équipe bi nga xam ne rek mooy dikk ak ki nga xam ne rek mooy ville de Dakar ñu doon ko defee foofu ci stade Diom Marius Ndiaye yéen a gis noonu ndaw ñi ña ngay yuuxuwaat encore Sonko namu naa la Sonko Sonko namu naa la mu doon loo xam ne kon boo ko fu ñu tasee rek rek dañ ko fay continuer di ko fi def ñoom ndaw ñi ginnaaw ba ko defee ci match Sénégal Algérie bi mu doon loo xamante nag àdduna bi yëpp jot na ci tey ji kon daal dinay ñëwaat ba fii ne rek ñoom seen xel Ousmane Sonko moo ci nekk li ñu bëgg rek mooy libérer Ousmane Sonko ndax fi mu lu ñu xaar rek mu libérer seen leader bi di Ousmane mu tënk nii daal fa mu toll koy namm lool ndax boo nga gisee rek saa ne ñoom ña ngay way Sonko namm naa la Sonko Ousmane Sonko mu doon loo xam ne rek fépp fu ñu taxaw dañ koy wax kon suñu tool nii Sénégal yëpp di xaar mooy ñu libéré ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko